auusu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala nabiyyil karim sayyidina wa mawlaana muhammadin almakin wa ala aalihi wa asaabihi wa xadiimihi shawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxala wa barakaatu gannaaw ba ñu leen nuyoo noo ngi dellu siwaat ci kattanug yàlla akub sañ-sañam akug mayam nu toogaat fii fas yéene àndaat ak yéen ni ñu ko baaxoo di defe ci àddina wërngal këpp ci communauté musulman bépp rawatina communauté mouridisme te ki leen koy defal seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye indicatif fu Cheikhul Khadim di taalibe Serigne Moustapha moom Serigne ma Samba Mbacke waaye di soppeeb sëriñ Mbacke moom maam soxna Lo Diop Taïf tey ànd ak sëñ mun Mountakha ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool tey roy Cheikh Abdou Lahad ci ak dëgg moo ñëwaat tey ci ajjumay ju tedd ji. muy bisu bi nga xam ne mooy sangu bis yàlla digal ci jullit yi ñuy dajaloo ci jumaa ya te tëj jàkk yi buñ demee ñu julli fa xutba fa delloo nit ñu ci yàlla loola tey jii ñu it foofa rek lañ teg suñ tànk daal ci wut ab émission boo xam ne dañ koo tudde ormay Touba ormay Touba nag bañ ko commencé ak léegi yàgg na tey wax dëgg yàlla yàlla ak ñi ci dimbali ci barkeb sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ñu di ko def ngir soññee ci taalibe yi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sëñ Tuubaa ñu gën a farlu bu baax ci ndigal yi farlu bu baax ci jaamu yàlla ci fànn yëpp waaye it soññaat kilifa yi yenn yi ñu jekkalaat seen toogaay ak orma ji nga xam ne moom la war a jox Serigne Touba war koo jox dëkkam bee di Touba ak fu waay mën a nekk di tuddoo Serigne Touba rek orma jooju foo mën a dem rek du la wàcc kon loolu rek mooy solos émission bi tey nag ñu bëgg koo tënk ci ñett imaan islaam ihsaan waaye ni ko sëñ Touba leerale ci wakkaana xaqan gannaaw tarjumaan ji waaye sëñ bi dafa defaat ay tomb yoo xam ne ñetti baat yooyu daf leen a cité iman islam ihsan te rëddam yooyu mu daan rëdd daf ko daan rëddal mag ñi rawatina ki nga xam ne mooy ki sosoon ci moom mooy bras droit tam muy maam Thierno Ibrahima Fati mu wax ko walla mu wax leen rëdd ñetti rëdd daa di joxe ay signal wax ne ëllëg lii dana gaar àddina islaam dana am problème imaan it dana am problème ihsaan it dana am problème nam ko lekk teq nag mooy daf ne imaan jii boo lëggee xaalis dana ko fi jële islaam tubaab bi dana ko fi jële ihsaan jigéen ñi dana ko fi jële déglu leen sëñ tubaab bu baax nag imaan jooju sëñ tubaab na xaalis dana ko fi jëlee tey jii moo déstabilisé pouvoir yi l'islam yëpp te ma nga tàmbulee woon nag ci jamono yontu bi sallallahu ci xeex boobu mu doon taxawal muy xare Uhud ba ba yàlla dogaloon ban jógee Badar ñu gañe woon ngañaay lu metti ngañ lu am solo muy victoire bu am solo ñu taxawalaat beneen xare muy bi gën a metti ci xare yi islaam yi muy xaswatul Uhud bi yàlla taxawee nag dogalee nag yonent bi sallallahu alayhi wa digal jullit yi ñu yéeg ci kaw montagne mi yéefar yi bari lool mu wax leen na leen li ma leen di wax day mooy di leen ko digal mooy xare bii ngeen di xare lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg fii ngeen taxaw bu leen fi jóge fii ngeen taxaw bu leen fi jóge buñ leen gañee wala bu ngeen gañee bu leen fi jóge mukk mukk mukk mukk loola moo doon digal li waaye bi yàlla dogalee ñoom Xaalid ibnu walit ñëw ak seen gàngoor yéefar yi ne ci suuf jullit yi nekk ci kaw jekku leen fett yi di dal fett yi di dal ba ni nga xamante ne si noonu la continuer yéefar yi dañ ne pëccet di daw ba jullit yi naagu nag jàpp ne kon gañe nañ ñu daal di gis nag alal ji tasaaroo ci kaw suuf bari lool yenn jullit na nasax ya daal di ne ah comme yéefar yi daw na kat seen alal jën nañ gaaw daw njëkkante ko kon li sëñ Tuubaa waxoon ne imaan xaalis dana ko fi jële kon foofu laa ko bëgg ubbee ba ñu demee am ñu wax leen ne leen yonent bi da dafa waxoon ne lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bu nu jóge fii mu ne ah loolu ba mu koy wax booba yéefar yi taxawoon war ñu rek moo ko taxoon di wax waaye comme daw nañ kay mën nañoo dem jëli seen alal kon xëtt nañ digal yonent ba ñu jëppeeloo ba dem bay njëkkante alal ja rek yéefar yi doxe leen gannaaw yéeg fan yéegoon jekku leen lool seen fett ya di dal fett yi di dal bala gàllankoor jullit ya ca xëtt ndigal loolee te alal dong moo ko waral loola tey bu sëñ Tuubaa ne alal dana fi jële imaan tey mën nañ koo gëm kon bu nu demee ba pouvoir yi lislaam am yëpp fu ñu amee problème alal la ko fa jëlee ñi nga xam ne ñoom xeex lislaam rek a leen tax a jóg te ci sunu biir la ñuy nekk di wuyoo li ñuy wuyoo di tuddoo li ñuy tuddoo nekk nag ay naafeq yoo ànd ak ay jaahil yoo am pouvoir am doole lool te duñu wér seen ngànnaay mukk ci di xeex lislaam ñu jël nag bataay boo xam ne xaalis lañ koy defee muy fu ñu fekk pouvoir ba mbooloo fa dajale te mënuñoo jékki-jékki dugg ci seen biir tasaare leen ci doole nañ leen fexe nag ba tasaare leen ci alal nañ fexe ba pouvoir yooyu kenn ki ko téye ci loxoom ñu fexe ba tasaare ko bu ko tasaaree kenn ku ne mu jox la pouvoir bu boobaa nag jam leen dana yomb te nit ki moom bu bëggee dara daraja wala bëgg alal ay waxam duutu sustu ay jëfam waxi noppi loola nag moo tax pouvoir yu bari yooyu nga xam ne benn pouvoir la waroon a doon nga xam ne ci la doole ji nekk ndax lépp loo gis mu tasaaroo bu dajaloo doon doon doon doon force waaye bu tasaaroo nag daal di néew doole ñu jël nag benn pouvoir tasaare ko ci ay pouvoir yu baree bare mi ngi mel na rek ni ma leen benn mën a waxee benn benn kër gu ñu miire ba mu daj ca kaw yëkkati ko ba kenn mënu koo yéeg kenn amul foo ko jaar ñu wutal ko benn buntu képp nga xam ne buntu bi kuy ñëw fa ngay jaar kuy ñëw fa ngay jaar boo jëlee kër gi nag dajji ko ay bunti bunti bunti buntu léegi kat ku ñëw ci buntu bu mag bi boo fi mënta jaar daal di jàll ci buntu yu ndaw yi fenn fu nekk nag man nit mën na faa jaar ba ruur surtout nag kaddu kaddu dafa foor kaddu goo xam ne boo boo waxee ñëpp danañ def moo xam ne kenn ku nekk la mën a yilif kaddu goog boo waxee ñëpp def kaddu googee buñ ko jëlee tasaare ko kenn ku nekk ñu compal la ci la yaa nangam te ñooña kaddu ga ñu daal di koy def pouvoir ñoom fas yéene cee dundal seen bopp loola dana tax yoon wi néew doole lool ba tax na tey jii gis nañ ne li ñu andil faiblesse andil nu ay problème xaalis boobee tey moonu ko yóbbee ndax li tax loolu xaalis yóbbu na ko ci séddale ko pouvoir yi dem nañ ba fi mu ne Serigne Touba mi nga xam ne nun moom lañ gëm nga xamante ne si benn buntu la muy buntu ban muy xalifa général des mourides dem nañ ba fi ne tegatuñ ko fenn kenn ku nekk da ngay jàpp ne lim doon ci Serigne Touba rek nga doon ci Serigne Touba waaye nag xalifa général des mourides moom moo ko doon gisu guma keneen ku ko doon ci fi bi mu fi nekk kon foofa rek lañu ñu waroon a waaroo nag xam ne kon kilifteef mënut a ñàkk bu fekkee nag kenn ku nekk la nga jàppee sañ Tuubaa mooy addina kese ak tasaaroo kese nga xam ne alal kese maanaam jàpp nga ne boo ko xasee am rek sa fayuk sëñ Tuubaa taxaw na ci yow kooku ab dof nga moo tax gis nañ ne mboolem fu taalu jàng doon taxaw ci biir yoon wi ñi ci daan formé ay ndaw ngir buñ màggee doon màggi lislaam tasaare nañ ko ci xaalis ba tax na ndoona yooyee ñu xëy xëy daal di koy wacc mu yaatu lool nag ci yoon te liy firnde ji mooy ñi nga xam ne ñooy xeex lislaam te jaare ko ci métatu xaalis te bëgg a tasaare pouvoir yooyu ba seen pouvoir bi képp di dogal ak dañ fañ ko jaarale mooy kenn ku nekk dañ laa fekk jox la daraja jox la alal ne la nekkoon ci sa baay mi ngi ci yow te sa baay juru la yow dong am nga ci kilifa nga ber sa yëfi bopp fee ber sa mbooloom bopp wër di campagne yeneen mbooloo moo ci boole boole fu ne nga dugg fa ku tere nit ñi fu nekk am nga fitu teg fa sa tànk ba pare na sëñ Tuubaa laa àndal loola tax na lii nga xam ne mooy xew-xew yu xew-xew yi yàqkati lislaam yi wala tas ñi bëgg a tas yoonu murit jaar nañ ci ne occasion yi nii nag pire boo xam ne xew-xew yi mën nañ cee jaar soppe ko ab campagne su ko defee ñuy wax suñuy wax di ñu jàllale suñuy message te loola la leen ko may mooy daraja ji nga xam ne gis nañ ne bëgg nañ ko ak alal ji nga xam ne bëgg nañ ko loola tax na ndon li sëñ Touba donn la woon pour ñu donn ko ci sunna si Yonent bi sallallahu ñooñe ñëw nañ tasaare ko màggal yooyu ak cant yooyu ak xew-xew yooyu gis nañ ne ñiñ koy tuddee nekkuñu woon foofu dañ doon ñu ragal yàlla lool boole jaamu yàlla ak liggéey rek ak digle lu baax ak tere lu bon ak dimbali jaam yi ak di leen yërëm loola képp a doon seen yitte addina mosuñu la mosuñu ko bëgg ñu doon kenn képp yàlla dogal nag bañ fi jógee ñu daal di ne occasion bii nag ci wutukaayu xaalis gisuñu bu ko gën a gaaw léegi nañ leen di fàttaliku fàttaliku mag ñi kee fàttaliku kee fàttaliku ñu dem ba décentraliser ko ne dañ ko yóbbu bitim réew fenn fu nañu estalaf ak cant fenn fu nañu estalaf ak màggal dégg nga di ko def ca senegal di ko def ca réew ma ba mu jàgg màggal bu feesee ñu soppi ko ay cant di ko def jëmm jooju jëmm jooju ak ñam jaboote bu ñu fa jógee ñu defal ko ñooñu bu yàggee réew mi day fees dell ki màggal te màggal yooyu turu màggal la waaye mbir la moo xam ne ñu koy def dong la concerné te wutukaayub xaalis la ak tasaarikaayu pouvoir tañ nangu ko te jaare ko ci xaalis nga xam ne bu ñuy wooteel kooku màggal gi dañ koy tàmbalee ca ka nga xam ne defaroogul ba pare nag yàlla dogal mu am xaalis moom la ñuy njëkk a woo ñu ngi lay woo ci bis bi tudde nañ ko président tudde nañ ko première dame ministère de l' intérieur dégg nga euh, premier ministre président assemblée national topp koor yooyu di leen ko tudde ba mu jeex ñu dem ci opposant yi xaw a dëgër di leen ko tudde daal di dem nag ci musiciens yi di leen ko tudde ba pare jël seeni avant première yooyu jàllale ko ci télé yi nga xamante ne si ah télé yooyu de gis nañ nañu tey bu lislam amee problème télé yooyu ñoo ko yàq te ñu ngi ciy xëy di ci gont ñu jël loola nag daa di cay daal leen koy jox ñu di ko jàllale bu bisu màggal ga jotee ñi nga xam ne wax nañ na ay donga lañ ci dëkkër gi te seeni baay nekkoon fi seeni maam nekkoon fi liggéey ba am aw wu mag doon fi kilifa gu mag jóge fi ñooñee la ñuy jël yóbbu leen ci wàllug liggéey ba wàllug taxat ma wàllum baas ba wàllum root ma wàllum bale ba ñooña lañ koy teg julli du ñëw mukk bañ bàyyi loola nekk ci service doomu aadama rek di dang dangi ñoom ñu nekk ci seen i programme rek di wuyu ay téléphone ak recevoir ay gan ak recevoir ay message rek ci autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk addina bi wala ñoo ŋànk doole ji te ñoom seenub xeex ci suuf la léegi nag su ko defee bu màggal ga jotee ñu tànt tànt bu rafet wut fa barab boobu dañ koy waajalal gan ñooñu nga xam ne ñoom ñooy niti aada yooyu ñu doon tuddee bisub jëmm jooju nga xam ne alxuraan dong la doon la dëkkoo woon ak jaamu yàlla ak sax ci digle lu baax ak sax ci tere lu bon su ko defee ñooña it ba la ñuy ñëw dañuy jënd seen tande antan ay enveloppe lañ ciy def ndax kuñ ko tuddee ku nekk bëgg nañ ko joxe dara su ko defee nag buñ ko fa joxee ba ñu jël alal ja ba costé ko seen i banque toggal leen ñam yu bakkane ñi nga xamante ne sii nag ñoom ñooy jàngkate alxuraan yi nga xam ne ñoom ñooy kuréelu suñ borom gi ndax ñooy nettali waxi suñu borom ji te sëriñ tubaa ñooñu la daan def kilifa ñuy jàng alxuraan lu ci gone tuut tuut boo ko mënee bu la yónni sax daf lay wax bul daw ñu baasal leen baas bopp bu naaj wa tàngee da ngay gis baas ba xotti ko ba naaja di ci jaar di ñëw ñu tegal leen paan ngelaw li di ñëw di ca sotti duñ leen ca defal sax doon ju galaas dégg nga xam ne benn pot bi la ñuy naane manqué leen respect bu ñu jàngee benn kaamil wala ñaari kaamil ñu ne leen doy na ndax programme bi day waaj a jege si nga gis oto yi commencé di dàqe di ñëw nga xam ne façon nit ku nekk ngi ñëw yor seen alal musiciens yi ñi ngi ñëw dégg nga fecckat yi ñi ngi ñëw mbëri làmb yi ñi ngi ñëw kenn ku ne rek daal loo yor xeebuñu ko woo nañ la ci bis bi ndax bëgg la ratt bu baax ba pare tuddee ko nag ki nga xam ne moom nekkul ci loolu bu bis ba jotee ñu jël jàngalekati alxuraan yi tege leen ne jànkati xasida yi ñu tege leen ne dégg nga recevoir gan ñi wutal leen bernde taalal leen ay climatiseur te doonuñu ci bàmba ji dara fekk na lekk nga sa njëg bu yàgg lekk nga sa njëg bu yàgg yàgg ci bunt bi nga xam ne moom nga fara ci yoon wi war koo wagar lekk nga njëg ba tàmbali yow sax yàq ambulance yooyu ñu jiitaloon jënd taade antenne bi bu nu dikkee wut nañ seen ku leen di waxal li ñuy wax ku leen di waxal daal koo xam si moo yor seen kaddu ca ñay woote loola suñu dikkee au lieu ko ki nga xam ne moom la ñuy doon wooteeg màggal ñu fàttali jëmmu jikko ya nga xam ne moom la daan def jàngal ko fa alxuraan jël ñay jàngkate alxuraan ya ak niti diine ya teg leen ca kanam màggal leen ormal leen jox leen ay ambulong yu duun ngir ndono lii nga xamante si moom lañ doon ci seeni waajur wa nekkoon ca loola ñu mën koo feddali ci ñii nga xam ne ñoom ñoo doon jàng alxuraan yi di jàng xasida ak waxtaankat yi nga xam ne dañuy waxtaan te doon réeral nit ñi di soññ nit ñi di leen dàggiwaat ngir ñu mën a jublu ci yàlla ñooña dañu leen di jël tege ne dege def leen ca gannaaw wut seen i garde corps tegal leen ci seen i kanam su ko defee ministres yi ñëw président yi ñëw ku nekk nag boo dikkee daa di ñu wax la balance bu bakkane nga toog kii ubbi parole bi du tàmbulee ci julli ci yonent bi day tàmbuli bu nuyoo dóor place bu gàtt daa di commencé dem nag ci li nga xamante ne si mooy meeting bi commencé di taggaate ñu ngi sant président di la république ñu ngi sant soxnaam ñi ngi sant premier ministre xam nañ na ko fonk sañ Tuubaa la xam nañ na ko fonk bis bi la ndax biñ ko ko waxee gis nañ lim ci def taxaw na ci taxawaay bu am solo ñi ngi sant gouverneur général ñi ngi sant préfet ñi ngi sant président assemblée national ñi ngi sant nangam nangam nangam lima lima lima lima lima lim ba bare daal di nag commencé di ko defal bilan gis nañ fi nga taxawoo yoon wi nangam ak nangam au contraire bu fekkante ne yàlla dogal na woote nga màggal gi te ñëwuñ it foofu la ñuy tàmbali yëkkati seen i kàddu président dafa kontaan sëñ Touba président nangam ak nangam gis nañ ne fu laalal sëñ Touba dafa fonkul kër gi gis nañ ne nangam ak nangam ak nangam te ka ngeen di wooteel bis ba ba ñëpp ñëw kooka moom dégguñu fa sax kàddoom kon gis nañ ne loolu lépp buntu yooyu xaalis a ko waral kon genn kaddu bu fekkente ne dafa peese dix tonnes ga bu ñu ko tasaaree ci def ko ay pouvoir kenn ku ne ñu ne la jëlal nangam loola moom yaakaar naa ne dana néew doole. moo waral tey bu médiation waree am doole ju lislaam mën a tee am wala doole ju yoonu murit mën a tee am ba mën a taxaw taxawaayu def médiation boo xamee ne que nii kenn du ko nattable loola gis nañ ne tey jii amatul kon nag yii yëpp moo indi problème bi kon loolu mooy li nga xamante ne fii moom la ñuy wax al imaan kooku gis nañ na xaalis yàq na te lii ma wax kenn du ko dindi ñu ñëw nag ci islam mu ne tubaab bi dana ko fi jëlee jëlee na ko fi ndax fi mu toll ni tubaab bi ay waawam ci la ñuy atewoo atewutuñ ci waawi lislaam tey tubaab bi bu dara xewee tey bu taxawee ne bu leen julli ah du mën a ñëpp duñ julli de waaye dana bari ñu dul julli dana bari ñoo xam ne si danañ tëj seen i jàkka dana bari ci ñoo xamante que nii dañuy wut seen imaam yoo xam ne si imaam yi moderne lañ di jël ay addis di taawil di ko waxee nam nañ bëggee nañ ko bëgg a déggee dégg nga islam jooju dem nañ ba tumu ko mel ne daal am soow mu weex tàll la woon léegi nag jël nañ ko di ko njar di ko njar di ko njar di ko njar ba caf kak soow amatu ca islam dañ koo njara njara njar ba caf kak soow amatu ca te lii may wax kuy xool Sénégal ni muy doxe xam ne lii may wax lu wér la ndax fi mu ne ngay gis ñu ñuy wax ay ulama lañ bu ñu tagaloo sol seen baxana teg tam koppati àndandoo ba dajaloo fi barab bu ñu waxee ngeen ne jullit yaa ngi nii waaye la ñuy wax kat ñoom corrigé wuñ ci seen bopp mbubb la moom daal dañ koy solalaate waaye kenn du ko sol te loola lii preuve mooy bu ñu waxee nañu woote jàmm nañ war a jàmm nit ñi nañ def jàmm moo ne jàmm jooja yaa ngi ci biir te boo ko defoon ci sa jëmm di wax dëgg te yàlla tax toog ci ab tele wax dëgg wala nga toog ci cérémonie wax dëgg te yàlla tax loolee de koo ci woo dana la wuy waaye léegi gis nañ ne njar nañ njar nañ ah, l'islam ji njar l'islam bi ba modérateur yi nga xam ne ñoom ñooy toog ci télévision yi di wax ak li nga xamante ne si mooy cérémonie yi njar nañ leen ba safatuñ l'islam waaye xam nga ne ay hadiskat wala waxtaankat ci diine bu nu toogee ci plateau télévision tagal seen i mbaxana léegi nga jël koo xam ne wax nañ ne moo seere émission ba nga xam ne boo demee ci musique ba mooy taxaw ca péjum ba boo demee ca làmb ja mooy taxaw ca kaw teere ba boo demee ca fa ñuy def miss jong ma moo fay taxaw lenn lu ci na ci loolu moo fay taxaw ba pare nag kooku it mooy taxaw di def modérateur l'islam di jox nit ñi paral ñuy wax ci lislaam te kenn du fa tënk waaye njar min ko njari tax na bis bii nga xam ne mooy bisub ajjuma tele yooyu nga xamante ne si ñoom dem nañ ba ajjuma jooju sax dafa bari dafa gudd ci ñoom ci temps biñ ci jox lislaam léegi waat nañ ko léegi ay musiciens la ñuy jël yoo xam ne si dañuy wax waaye di tudd yonent bi léegi yonent ba ñu tudd rek jàpp nañ ne léegi moom moom la ñuy màggale léegi xam ne ajjuma jël ay ostaas teg leen rax leen ak jigéen yoo xam ne si dañuy def animation ci wàllu musique nga xam ne ñoom ñëpp xam nañ leen ci ak animateur boo xamee ne que ni moom it day yëngu ci wàllu musique ak plateau yi mu la wax ñu jël nag ñaari ostaas nag ne leen dajji ñu toog ne dañuy waxtaan diine eh, te kee mooy seen modérateur booba ngeen war a xam ne perte ngeen seen wëlër bu yàgg ñu demee ba nga xam ne def nañ ab ndiir su néew ñu taxaw ne nañ nañ dawal clip duñ indi jàngkat duñ indi alxuraan duñ indi dara ab musicien wala ay guitariste la ñuy génne yoo xam ne dañuy guitare te ñuy toog ne dañ fay présenté l'islam na doj ak seen i mbaxana ak seen i kaala kon xam nga ne moom wóor na la léegi tubaab bee ko dominé te it dañuy ragal dëgg duñ ñemee wax dëgg ndax boo waxee dëgg yaakaar nga ne place ba ngay liggéeyee duutoo fa nekk kon xam nga gëmatoo yàlla ndax yàlla moom ko gëm da ngay yamale wéet ci dëgg ak wéetaliku ci bu fekkee da ngaa yor message suñu di ko wax da ngay yamale wéet ci dëgg ak wéetaliku ci waaye su ma waxee lii kat borom barab bi dana ma danañ ma mere wala danañ ma sanctionné wala njiitu réew mi dana ma dana ma wax nangam wala enveloppe yi ñu ma daan jox duutu ñu ma ko jox kon xam leen ne xaalis boobu ak tubaab yooyu ànd nañ fi jële fi ngëm waaye jële nañ fi li nga xamante ne si mooy lislaam kon lislaam yi Sénégal a ngoog kon lislaam yi Sénégal jooju bu nee ba nga xamante ne si wax nañ ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulman te amatuñ baat bu leen mën a boole ba mën a xeex dara ñu tasaare pouvoir yi kenn ku nekk ñu ne la yar yaa yor pouvoir sàngam te ñëpp ne islam la ñu wuyoo ñëpp ne benn alxuraan la ñuy jàng ñëpp ne jenn kaaba gi la ñuy la ñuy la ñuy ajejee ñëpp ne tabaski ñoo ko bokk korite ñoo ko bokk te bokkuñu nu ñuy doxe ci yoonu bi kenn ku ne yor sa pouvoir bopp dégg nga lu sa morom tëgg nga contrer ko ci sa maam lu sa morom tëgg nga contrer ko ci sa maam nga xam ne ab jullit mën naa taxaw ci télévision di xas moromum jullitam waxtaankat mën naa taxaw di léebu waxtaan morom morom katam te tey ji koo ci jox xaalis tegal ko dëgg goo xam ne yàlla rek a tax mu bàyyi fa dëgg ga daal di jël xaalis ba ba pare nag di wax wax joo xam ne si da lay wóor ne li yàlla waxoon ne innal munafiqina fi darakal asfali mina naar loola moo ci am mooy naafiq bi nga xam ne jàng na ba na ar waaye rëgalul yàlla te inna la si lam yaxsa rabbal alamin laysa bi alamin wala afnal funoon sëñ Tuubaa waxoon na ko boo jàngee xam-xam ba ne ar te rëgaloo yàlla rek na nga xam ne sa xam-xam boobee yaa ko xamul dara yéen a yéen a yem te gis nañ ne ñiy wuyoo diine ak di wax ci diine danoo ragal dëgg lu tardé moo ko tardé te preuve bi mooy lii xewoon senegal bërki démb gis nañ ne perte nañ seen i wëlër kon la ma daan wax bu njëkk rek ne leen lislaamu Sénégal ak col la aw làmmiñ la ay wax la loola tey jii feeñ na ci lislaamu Sénégal bu weesoo làmmiñ bu weesoo yàlla nee na waaye dëgg daal moom laa xam ne bu nu ko bu nu demeen ba jub ko wàññi ko est ce que ñii kon bu yonent bi ñëwaatoon doon wotee xara danañ dem naa feq yi nga xam ne dañuy tuddoo lislaam te bu dara de su dul joxe sa bakkan ñu taxaw lànk kon naafiq yooyu tey bu ñuy waxatee quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans nañ ci génnee quatre-vingt-cinq ñu moye ko ci naafiq yi bu ñu ko ci moyee yaakaar naa la cee des de cinq pour cent kon alxaqu min rabbikum nanuy wax dëgg te yàlla tax beneen bi ci des mooy fi ñuy tëjee mooy al ihsaan waxoon na ne jigéen ñi danañ ko fi jëlee ñaata nit a doon wax tey ñu ne pat ñaata nit a doon wax tey ñu ne pat ñaata nit nga gis tey seeni ujoo ñu wut fuñ ko garde foo xam ne ba àddina tukki du dañ jamono buñ bëggee ñu noppi ñu noppi te kenn ëpp leen woon coow démb kenn ëpp leen woon coow démb waaye defe na lislaam mam ak fowukaay la defe na lislaam moom mbubb la mooy sol rek jël say tànk teg ni woo nit ñi daal di teg ca kaw loola lañ jàppe lislaam ba tax jombuñu rëgaluñ te sëñ Tuubaa dafa daan wax na ngeen di bu leen di jomb bu leen di rus bu leen bu leen bu leen ragal bu leen bu leen rus bu leen di ragal bu leen di rus dee leen jomb bu leen di ragal bu leen di rus dee leen jomb neena ab jullit day jomb ab jullit day jomb te jomb mooy foo nekk yow dong ne man de fii day jomb na maa def la ñaaw waaye ragal moom nee na boo ko xasee def boo gisatul ka ngay ragal def lañ lay tere nee na rusit boo xasee def boo gisatul ka ngay rus def lañ lay lañ lay tere waaye jomb nag moom moo dañ ci ñun maanaam jomb ci boppam moo dañ ci ñun kon bokk yi mbir maa ngi noonu bari na ci ñoo xam ne tey jii ñu ngi tuddoo diine moo xam kay waxtaan ci diine la moo xam ñi ñuy wax ay kilifa bu ñu nee waxee kilifa diine nag bu leen jàppee ne ñi nekk ci boppi diine ji moo tax ñuy wax kilifa diine man mii sax ci laa bokk bu mu dee wax diine sax man ci kilifa diine la bokk am na ci ñoo xam ne si tey jii seen kàddu bañ leen gëj a dégg kenn xamatu ko kon insaan googee sëñ Tuubaa waxoon na jigéen ñi dinañ ko fa jële foofa lañ leen jaarale ba yeew leen bañ na ngod ñu naan xanaa diw dafee nekkatul diw daa gëj a wax ñu naan daa dëddoog daa soppi koog dañ ko yeew ci buum kon loolu mooy imaan islaam ihsaan sëñ bi waxoon na ko imaan xaalis dana ko fi jële islam tubaab bi jële ko fi ndax atteetuñ ci attey l'islam sëy l'islam tëkkatu ko ci senegal tubaab bee koy takk tubaab bee koy tas condition yi ñuy doxee ci l'islam lépp tubaab bee ko soppiku tubaab bi jël na fenn teg ne gas leen dëgg ba mu xoot ngeen suul ko ci kenn ñemeetu ko wax ku koy wax da nga koy raay raayal koy wax ba jub ko wàññi ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf